xale yi lañu commencé woon euh, di manifester bon waxuñu joxuñu benn kii daal dalil euh, li tax ñu ñu ñuy manifester léegi nag bi ñuy ci dem suba dañu euh, dañu oon pour waxtaan ak ñoom ba ñu delloo leen ci classe yi dem cours yi continuer mais tey nag puisque pare wuñu woon ñëw nañu normal ñu commencé cours yi huit heures ba huit et demi yooyu neuf heures moins lañu am ñeneen ñi nekk ci ginnaaw école bi sànni ay xeer ci kaw kaw bâtiment yi ak bruit bi nag ñeneen ñi ñi nekkoon ci biir classe yi daw di génn di yuux alors noonu la ñu euh, demee euh, génn école bi léegi nag bon ñu yaakaar ne jeex na après ñu ñëwaat en masse ak ak seen président gouvernement scolaire ñu ne léegi dañu ñëw wax euh, li tax li tax ñu ki alors seen président gouvernement scolaire bi mu ne daal ñoom ñu ne dañuy bëgg a dem vacances léegi bon man euh, ma buggoon leen tontu pour kii mais fekk daal tey parewuñoon wuñu woon ñu commencé di sànni xeer mu amul leen loo xam ne xes ma leen xes naa leen wax sax parce que tey pare wuñu woon jàng daal. noonu la man ñu yóbbu ma ci hôpital bi pour euh, faj ma sama ñaari kii dama ñaari xeer ñoo dal sama kanam heureusement am naa chance sax dalu ci ci bët bu daloon ci bët moom day day yàqu carrément mais maa ngi ci sant yàlla.